mbokk téléspectateurs yi topp programme télévision Futur Média ñoo ngi am mbégte bu baax a baax a baax euh, ak contentement dellu siwaat fii nga xamante ni moom mooy euh, seen plateau soir d'info muy bloc d'information bi commencé à partir de dix 19h ba après journal bu 20h seen deuxième partie euh, bi nga xamante ni moom ci la ñuy dalal kenn ci koo xamante ni day yor loo xamante ni am na solo ci réew mi di ko doxal deuxième partie bi nag dinañ ci dalal ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Mbengue jiite. li nga xamante ni moom mooy Free euh, dina ñëw fii waxtaan ak ñun ci service yu bees yi nga xamante ni am nañu ko mais euh, jafe-jafe yi nga xamante ni tamit fan yi yéen a ngi koy dégg ci prestataires yi loolu yëpp dina ci indi ay tontu waaye ci première partie bi dinañ ci dalal euh, Issa Oumar Bass moom nag léegi ngeen miin xar kanamam ci média yi rawatina jamono ji nga xamante ni coow lu bari moom moo am ci wàllu. mbayu mbayu mbayum dër mi nga xamante ni ci wàllu pomme de terre ak soble coow li xaw na ci bari euh, moom dina ci indi tamit ay euh, tontu ci jotaayu euh, soir d'info bi ñu fas yéene ci ànd ak nag sunu xarit Mouhamad Ali Mouba Mouhamad maa ngi lay nuyu di la dalal ci plateau soir d'info. merci beaucoup nuyu la nuyu suñu invité nuyu. spectateur yëpp. Euh, jërëjëf Mouhamed Ali mu Mouba moom la ñu fas yéene àndal ci jotaay bi ci première ak deuxième partie bi euh, Issa Oumar Bass ñoo ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci plateau Soir d'info. maa ngi lay fay di nuyu baykatu Sénégal yëpp di nuyu téléspectateur TFM. Issa umar Bass moom moo dirigé association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal muy benn kuréel boo xamante ni tey jii ñu toll ci 5000 euh, agriculteurs ñoom ñoo ci nekk di ci yëngu jamono ji coow li ni mu bare Issa lan lan moo ah, lan moo tax ngeen bàyyi tool yi ñëw ci plateau yi. li tax ñu bàyyi tool yi ñëw ci plateau yi de euh, ñi ñu waroon a déglu. directement ñoo xamante ni dañu waroon jànkuwanteel ja euh, xool di nekk nekk ak ñoom si benn néeg di di xoolante di négocier di discuter ñooñu ñooñu dégluwul moo tax ñuy euh, ut yeneen voie pour mën a discuter ci problème yi nga xamante ni yooyu la nekk di jànkuwanteel fii si si jamono yi. boo ko seetloo juróomi at yi passé at bu nekk. dañuy gën di jànkoonteel ak ay jafe-jafe jafe-jafe yi jànkoonteel dañuy gën di dem di tar di gën di tar di gën di tar ba reen moom li ñu dal dafa jéggi dayoo dafa jéggi dayoo te tiit nañu lool tiit nañu lool ni bu ñu saafaraalul situation bi nekk ni bi ñuy jànkoonteel ni tey déwén li ñu nar dal moo nar a gën a metti li ñu dal ren te loolu kenn xamul fu ñu nar a yóbbu parce que ren c'est situation bu catastrophique euh, ci commercialisation produit horticole si loolu la ñuy jànkonteel tey mais déwén li ñu nar a dal déwén moo gën a terrible moo gën a bon li nga xamante ne moo ñu dal nar a dal moo moo ñu parce que facteurs yi nga xamante ne yooyu ñoo bokk te euh, di di di di di euh, indi problème pour commercialisation at bu nekk dañuy gën di yokk di gën di yokk di gën yokk mais fi ñu toll ni tey il faut que ñu am solution yoo xamante ni solution durable la waxuma ay solution pour euh, benn at wala solution pour am nañu stock nag lan la ñuy war a mën a def pour ñu liquider euh, stock soble bi nga xamante ni moom la ñu yore wala stock pomme de terre bi ñu yore li may wax mooy lan la ñuy mën a def pour li ñu dal reen bañ ñu dalaat déwén. waaw euh, lu ma bëggoon rek laaj mooy lan moo tax solon yow nguur gi tànkamul leen ndaxte nee nga sànq vous êtes un millier quantitatif la bu fekkee nii par exemple euh, jot ngeen am doole boobu ngay wax noonu lan moo tax nguur gi. lu tëjee leen seen i bunt. xaw ma vraiment xaw ma parce que euh, fii si Sénégal euh, acteurs les les représentants des services déconcentrés de l'État des services décentralisés de l'État ñii nga xamante ni ñoom ñoo nekk sur le terrain xam nañu ñun ñooy kan. gouverneur préfet les gouverneurs les préfets les euh, services de renseignement tout le temps ñu ngi ak ñun. service de renseignement tout le temps dañuy euh, amul benn manifestation bu may def te jëluma sama téléphone ma invité leen ils sont avec nous donc xam nañu ñun ñooy kan comprendre nga li may wax kon bu ñu amee ay problème man ma jël sama ma jël euh, bind lettre de demande d'audience auprès d'une autorité fii Sénégal dañu war a au moins accuser réception. Euh, lettre bi wax ma mënuñ la recevoir parce que ça et ça. ils ne le font pas euh, dañ ko dul def dañ ko dul def et en plus de man wóor na ma ni bu doon kenn moo jógee Sénégindia wax dafa bëgg a benn bi le ministre de l' agriculture wala le ministre du commerce du du euh, dañ ko ubbil buntu bi rek. lan nga njort ne moo tax dalaluñ la lan nga lan nga njort. billaay xaw ma lan. bilaay xamal lan mooy est-ce que ndax est-ce que kon problème yi ngeen di poser sur la table. Mhm. dafa nekk ay problème yoo xamante ni. dafa amul wala ndax lu am la dëgg affecté secteur bi xam nañu bu baax a baax nguur gi yëpp gu l'état du Sénégal nguur gi xam na ni bu baax a baax ni heure bi ñuy wax ak yéen nii tey ñu ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe yu tar ci wàllu njaayum produit horticole fii si Sénégal lan parce que tout simplement dañu nekk si situation boo xamante ni sur production la surproduction boo xamante ni c'est l'État qui l'a créé. prenons des exemples. l'oignon par exemple. ou la pomme de terre pour le moment ça ça ne va pas mais on peut commencer par comme ni nañ dem kon ci oignon bi. xam nga problème ci oignon bi. Mhm. problème bi waaw soble <laughs> soble bi mhm. soble mhm. nee nga problème de production amul. Eh, mais peut-être écoulement mooy mooy problème bi. peut-être loolu ça affecte les petits producteurs est-ce que quelque part aussi. Euh, waru leen peut-être euh, xoolaat seen bopp ci wàllu yooyu ndaxte gis nañ ni les gros producteurs ils ne se plaignent pas. Euh, problème problème problème production moo am parce que boo nee surproduction loolu production la dafa da boo dee surproduction dafa li muy tekki mooy production bu ëpp bu ëpp li nga xamante ne ñun mën nañ ko consommer loolu la ñuy jànkonte te loolu nguuru Sénégal moo ko indi te ma wax la encore lu tax ma ne déwén ce sera encore piir ñu ngi yokk ñun li ñuy conseil li ñu li ñu li li nguur gi li li nguur gi laaj mooy yokk leen seen production pour ngeen mën a dundal Sénégal at bu nekk ñu ngi yokk production bi at bu nekk dañuy liggéey pour yokk production waa léegi nguuru Sénégal bu demee jéggaane ay ay français jëlee leen France ay hollandais ay ay espagnol ay italien ay indien ay indien ay indien indi leen fii si Sénégal jël ay junni ak i junni hectares jox leen ko pour ñu ñëw di bay bu ñuy bay ñoom li ñun li ñuy bay ñoom loolu la ñuy bay di conclure di te amul kenn xamul y' a pas d' problème bi lan la encadrement ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee. agro business mais c'est pas interdit le jeu de encadrement mooy lan. encadrement mooy yow. yaa ngi jóge lay wax concurrence non non non encadrement laay wax. encadrement mooy lan mooy yow jóge nga fële réew yaa ngi ñëw fii di bëgg a fii si Sénégal sénégalais yi war nañu xam nguuru Sénégal war nañu xam lan ngay produire foo koy jaayee ban quantité ngay produire fan nga koy produire. kan ma la wax ñoom xamuñu ko. buñ ko xamee wane wuñ ko. bu ñu ko xamee wane wuñ ko parce que n'est-ce moo leen di jox agrément. moo leen moo leen di mais j'ai l'impression que ñoom li ñuy def. amul contrôle je non non non xamuñu ko. Mm-hmm. xamuñu ko xam nga lu tax xamuñu ko. Mm-hmm. Euh, ñu ngi nekkoon euh, avec euh, ARM. il y a il y de sa deux ans. ñuy négocier ak ñoom j'étais en train de taper sur la table ma leen il faut mettre fin à ce que aux ajustements de Sénégindia ci production soblé ñu ne ma mais yow looy wax ni. Sénégindia mooy ñan Sénégindia mooy indien yi jógee Inde ñëw fii. di jox leen 3000 hectare ñetti junni hectares fële ca Mbaan ñu nekk foofu di bay bi mu leen ko waxee ma ne leen seen ajustement ni ñuy ni ñuy euh, comporté woo si mbayum soble bi il faut ñu wax ci xam nga lan lañ ma wax yow yow li li ngay wax foo ko jëlee ñoom nekkuñ si soble si pomme de terre la ñu nekk. pourtant ils sont ils ont 500 hectares de soble. kon ñoom xamuñu donc situation boobu la ñu nekk loolu moo tax ma ne il faut que on aille vers les états généraux de l'horticulture au Sénégal pour que ñu xam kan mooy kan fan la nekk di bay lan la nekk di bay fan lay jaayee encadrement bi mu lay wax c'est nécessaire parce que mun mënuñu bàyyi nit ki jógee réewam ñëw fekk ñu fii ñun ñu jël suuf gratuitement jox ko ay junni hectare muy bay di concurrencer ak suñuy baykat ci ay anam yoo xamante ni dafay gaañ ñu ne duñ koy ko neex on ah, ah, problème bi du problème bi généralement c'est pas la production parce que <coughs> yéen produire ngeen nee ngeen euh, loolu mi ngi des seen loxo loolu mooy problème bi mais est-ce que yéen tamit euh, yéen a ngi def effort pour transformation bi wala pour euh, ngeen garder seen seen seen stock yooyu parce que c'est ça le gros problème. non bu fekkee ni garder wu leen ko munoo leen. permettre peut-être ngeen ngeen dool du leen permettre ngeen mën a jaay ci marché bi. normalement Mohamed il faut nga comprendre dara il faut nga comprendre dara transformation yow ñaar yi wax ni tey heure bi soble la ñuy wax ak euh, pomme de terre ñun li ñuy wax mooy dañ koy jaay fii Sénégal li ñuy produire mooy li sénégalais yi di laaj. li sénégal yi bëgg lekk ñun loolu la ñuy produire. en terme de qualité ëpp leen ñeneen ñi ah. Ah, ah. terme de qualité y' pas en Afrique de l'Ouest ku gën ku ëpp gën a qualité bu baax que producteurs yi nekk dans la zone des Niayes. man li may non damay producteurs locaux qui sont ma laaj dara nga may ma ma ma tontu la da nga ma conservation nga wax ak transformation fii si Sénégal lan ngay transformer pomme de terre loo xamante ni Sénégal yi ay purée est-ce que ñun nga exporter. c'est ça le problème exportation yooyu fan nga koy yóbbu ci ay réew yoo xamante ni ñoom ñu indi fii di ko jaay fa loolu loolu la sous-région peut-être. non sous-région ils cultivent la même chose que nous ñun ak ñoom ñoo bokk climat. Hmm. ñoo bokk euh, euh, heure yi ñuy bay ñoom ñoo ñoo bokk li ñuy bay ñoo bokk ni bayee ñoom ñooñu sax ñoom. léegi soble bi soble bi pourquoi ne pas nous transformer ko en poudre peut-être jaay ko à à l'extérieur. kañ nga gëj a lekk poudre soble. mais ñun peut-être du ko lekk mais non non sa kër kañ nga gëj a lekk poudre soble. voilà la question je parle pas ah de moi c'est facile c'est facile c'est facile de dire transformer euh, conserver mais loolu ça a un coût. ça a un coût. Bon, on est en train de travailler sur ça. Sur le, ça sur, on est en train de travailler sur ça. Oui. On est en train de travailler sur ça. Mais ça, il faut, il faut savoir qu'il y a des limites à ça. léegi balaa nga may wax man ñun ko producteurs sénégalais yi nañu nañu euh, transformer nañu cons pourquoi on waxuñu ko ñoom euh, les les étrangers qui viennent ici yoo xamante ni ils ont des terres gratuitement. mais eux, ils n'ont pas ce problème-là de d'écoulement. ils ont des non ren ñëpp am problème. ren ñëpp am problème mais mais ñun problème yi ñuy am ñoom yi ñuy yi am ñoom c'est plus c'est plus doux pourquoi parce que ñoom rendement yi ñuy am parce que c'est euh, c'est à l'échelle il cultive à l'échelle rendement yi ñuy am c'est énorme à l'hectare 100 tonnes à l'hectare ou plus parce que c'est c'est c'est des activistes peut-être def euh, de travailler dans ça mais mais c'est pas des changements yoo xamante ni c'est brusque nii rek lay ñëwee li ñuy dal reen daf ñu bett maa ngi doon wax ni li ñu nar a dal reen euh, déwén moo gën a bon xam nga lu tax ma wax la on a euh, l'État du Sénégal mu ngi développé ay programmes yoo xamante ni day yokk production mais indiwul stratégie de de commercialisation Prodac bi ñuy inauguré il y a une semaine ñu ne 5000 hectares la balaa loolu fële fanay on a inauguré 1000 hectares nest on a un autre programme boo xamante ni mu ngi woo tubaab yi encore woo européens yi nañu ñëw mooy PEDIDAS c'est dans la zone de c'est dans la zone des Niayes ak kii euh, Fouta euh, pas Fouta comment dirais vers euh, Kër Momar Sarr côté yooyu donc yooyu tamit ñu ngi woo 20 000 hectares yoo xamante ni on est en train d'inviter les étrangers pour qu'ils viennent on leur hectares il font la même chose que nous donc on a ça on de, multiples petits programmes yoo xamante ni ñu ngi leen di développer chaque année fii yoo xamante ni li ce qu'ils visent c'est la production mais amuñu stratégie pour commercialisation amuñu stratégie alors, pour alors, ça ça pose problème alors Issa Issa c'est c'est c'est c'est c'est c'est-à-dire que aujourd'hui ñoo ngi bu ñu déggee ni nga waxee mooy yaa ngi chargé les autorités mhm. la direction de l'horticulture mm -hmm. le ministère mais de votre côté ouais. est-ce que vous avez réfléchi yéen tamit ci ay stratégie de commercialisation ndax yéen yéen xam c'est des privés seen secteur est-ce que tamit am ngeen organisation bi Mouhamed doon junj léegi est-ce que am ngeen benn benn benn amorce au moins de de stratégie de commercialisation ba nga xam di ngeen mën a wax ne nguur gi fekk si wu leen wala déet xam nga bu ñu balaa nguur gi la fekk si il faut mu déglu la d'abord il faut mu déglu la bu la déglu da la fekk si euh, nous on a créé notre organisation il y a de ça deux ans ci euh, campagne sensibilisation la ñu nekkoon léegi on vient de créer une coopérative agricole coopérative agricole le but c'est exactement ça trouver euh, définir des stratégies pour la commercialisation de nos produits mais même bu ñu ko defee même bu ñu ko defee si l'État ne crée pas un environnement favorable pour que nous puissions vendre on ne pourra pas vendre quel que soit par ailleurs quel que soit par ailleurs stratégie yi ngay mën a. ngay wax environnement favorable un environnement favorable mooy par exemple. da nga bëgg ñu dàq ñoom Sénégal Ndiaye wala. waxuma nañ leen dàq. Hmm. waxuma nañ leen dàq mais nañ leen encadré mënuloo bay loo xamante ni. Euh, boo boo ko dugalee si marché bi dafay gaañ baykatu Sénégal ñoom nga jël boo ko defee ou bien boo ko defee boo ko defee boo ko defee il faut prévoir une partie boo xamante ni yow da ngay ut foo xamante ni ti vas exporter ça parce que moyens yi nga yore ñoom yorewuñ léegi man Issa euh, Issa am naa benn laaj mhm. lan moo tax tey yéen joytu bi ngeen di jooytu lan moo tax ñoom duñu ko jooytu est-ce que ndax ñoom ñooy gën a gaaw a écouler wala ndax ñoom dañoo waaj ci am préparation boo xam am nañ stratégie boo xamante ni xëy na yéen amu leen ko loolu mooy question bu njëkk bi beneen bi mooy est-ce que y a une seule entité aujourd'hui buy wax ak état wala ndax danga am yeneen kuréel yuy yëngu ci li ngeen di yëngu di wax ak état ok euh, bon man mënuma wax maa ngi wax ak état parce que état dégluwuma mais est-ce que am na ñu muy déglu euh, euh, xaw kan lay déglu mais man déglu mais est-ce que y a une autre organisation dans le secteur il y a beaucoup de petites organisations dans la zone de Niayes mais aujourd'hui la plus dans la zone de Niayes si l'organisation que vous dirigez dans le domaine de la production horticole, si vous êtes l'organisation la plus grande dans la zone des Niayes, dans l'horticulture donc au niveau du Sénégal amul benn bu day c'est aussi simple que ça maintenant la première question bi nga ma il faut que je réponde à cette question daf laaj pour euh, est-ce que ñoom euh, euh, il ne se plaignent pas ouais. ils se plaignent pas eux des euh, chambres de stockage, ils ont des, des, des, des, unités de stockage qui sont énormissimes et qui coûtent excessivement cher. Tu ne parles pas en termes de millions, tu parles en termes de milliards. C'est ce que ça coûte. C'est des milliards et des milliards. quelqu'un qui m'a dit avec millions, mun nga am euh, foo xamante ni mun nañ sécher euh, l'oignon. loolu ku benn tool lay doon. peut-être pour benn tool bu 5 hectares wala 6 hectares on est en train de parler de producteurs yoo xamante ne ay junni ak i junni producteurs horticole la ñuy wax waxuñu benn producteur man loolu mën naa ko am sama tool. li ngay wax nii mën naa ko am sama tool. c'est organisation je parle de l'organisation. ngeen ngeen l'organisation on est en train ma ne la on on on vient de faire notre assemblée générale il y a une semaine. il y a dix jours donc c' est un peu c' est c' est dans ce processus là donc ñooñu les moyens xam nga il est encore beaucoup plus facile pour eux d' accès au crédit que nous d' accès au crédit il faut que ce soit très clair il c' est cette situation crédit pour. Euh, financer leurs activités les fonds de roulement c'est leur banque. même ici c'est non c'est fii la ñuy jëlee xaalis bi ñoom bi ñu ñëwee si Sénégal c'est ici qu'ils ont pris l'argent c'est ici qu'on a financement yi am yëpp fii la ko jëlee. parce que vous n'êtes pas formel c'est ça wala. pardon parce que. Euh, da ngeen euh, jaarul peut-être da ngeen nekkul lu formel peut-être wala. je vous dis que on vient on est une association qui est reconnue par l'État du Sénégal on vient de faire notre AG. Euh, et il y avait les représentants du gouverneur du préfet DRDR ñoom ñëpp ils dans la salle Donc il ne faut pas dire que ce n'est pas, c'est très formel. Il a rien de plus formel que ça. Moi, je parle pour mon organisation. Ce que les autres font, bon, ça. lu tax banque du leen jox xaalis kon. on est xam naa dina am ay soppeeku si processus yi léegi. Hmm. Euh, si léegi léegi mais en tout cas jusqu'à présent ça les les producteurs ont eu ces problèmes là. waaw ça ils ont alors question Mouhamed li tax mu am solo mooy l' association peut être formelle. Mm-hmm. reconnue par l' état. Mm-hmm. mais agriculteurs yi nekk ci biir. Mm-hmm. am ay structures am ay entreprise est ce que ñooñu dañu nekk dans l' informel wala dans le formel. jusqu'à présent euh, l'agriculture au Sénégal. ça a été plus dans l'informel que le formel. Mais maintenant, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de, les, formaliser, c'est-à-dire de sortir de l'informel pour faire des producteurs agricoles ici au Sénégal, pour en faire mm. des, euh, des, des, entrepreneurs agricoles. Mm. C'est ça la mission. D'ailleurs, la mission de notre organisation, c'est transformer nos producteurs en de véritables entrepreneurs agricoles. C'est ça notre mission. avec des objectifs, euh, un objectif global bien précis et des objectifs spécifiques très bien précis. Mhm. Mais en tout état de cause, oui. quelle que soit la situation, tant que au niveau de l'État, on ne crée pas un environnement favorable, c'est-à-dire des stratégies très claires de commercialisation pour l'ensemble des acteurs qui s'activent dans l'horticulture ici au Sénégal dañuy jànkuwante. alors une question pour vous ña heure bi nii ñaata tonnes moo nekk ci seen loxo yoo xamante ni daanaka. bu ngeen moytuwul day yàq waaw. bon euh, dafa am loo xamante ni dañuy nekk di ko génne. on n'a pas fini. on est en train récolter au moment où je vous parle pour le moment. non non on est en récolter en moment boo demee Ngoben fii ce que sur selon ce que j'ai lu ils on 60 si seen loxo loolu la ñu wax boo demee dans la zone Ngañul Potou ils ont à peu la même chose mais problème bi mooy lan mooy chaque jour dafay gën di day dañuy génne li yàqu di ko sànni. di desee quantité bu gën di néew chaque fois boo génnee dara si sa production nga sànni ko li muy tekki mooy sa am-am dafay wàññeeku. c'est ces situations. lan mooy relation bi ngeen am yéen ak commerçant yi. yi nekk ci marché yi. commerçant yi c'est pas c'est pas de leur on a de bonnes relations non traditionnellement on a euh, euh, euh, ku nekk ci ñun xam na koy commerce ban commerce. est-ce que da ngeen on a de on a d'ailleurs benn organisation bu tudd IPOS qui regroupe aussi bien des producteurs que des des des ñëpp a fa nekk donc il une. harmonie c'est-à-dire on n'a pas c'est pas le souci c'est pas mais même ñoom bu ñu jëndee si yow bu ñu ko yóbboo mënuñ bu ñu ko ah, bu ñu amul fu ñu ko denc wala fu ñu ko jaayee lan est-ce que dinañu. duñ yàq duñ yàq Issa est que ñi ñëw étranger yi ñëw tey jii euh, fekk si leen ci domaine bi ngeen nekk ndax ñoom dañoo am ay jumtukaay yuy tax ñu def plus de qualité que vous. non wala ndax se c'est euh, euh, méngoo na. non du qualité volume la ñuy def. mais am na ñu ne ils font plus de qualité que vous. non euh, ma xoolal. Euh, <laughs> wàllu séchage. dama lay wax rek. dama lay wax est-ce que Mouhamed Dubaï est-ce que amul dans la zone des Niayes dama euh, ma jëlee fa soble. boo xamante ni ça récolter au mois de mars ba tey dafa nurook soble bu bees problème bi mooy ñoom ñooy def loo xamante ni produit variété yii cultivé du point de vie volume ak rendement di am rendement bu mag a mag a mag mais euh, doo ko mën a conserver parce que dafay gaaw a yàqu dafay gaaw a yàqu parce que c'est, non c'est la nature même du produit par exemple ñun li ñuy nekk di récolter heure bi tey c'est la même chose ñun li ñuy récolter heure bi tey di nga di euh, euh, di di boo ko récolter immédiatement da nga ko war a yóbbu nga jaay ko parce que boo ko jaayul dafay yàqu qualité bi benn la mais Issa est-ce que tamit xam nga dafa am lu ñuy wax partenariat public privé mm-hmm. xam nga yéen tamit mm-hmm. man jàpp naa ne tey bugg leen a continuer di état mel ni babysitter ci yéen. Mhm. maanaam bëgg ngeen a màgg. nekk ay kilifa ci seen domaine. Mhm. am indépendance ak autonomie. Absolument. vous êtes du secteur privé. Absolument. mais est-ce que tey jii tamit amul liggéey boo xamante ni yéen yéen a ko war a def ba pare. Mhm. doog a sàkku état nga xam état moom mbaxal na lay nekk da ngeen defar lépp ba pare mu ñëw tegu ci kaw. am na lu bëri lu ñu war a def balaa ñu sàkku état. mais par exemple li nga fi c'est-à-dire par exemple on doit diversifier notre production. on doit diversifier ça on doit. Euh, diversifier et nous orienter aussi ci production yoo produit yoo xamante ni c'est transformable pour nga ajouter valeur oui. c'est transformable pour que ce soit conservable oui. je viens de vous dire que ñun on a fait notre AG ça fait pas 15 jours donc euh, ah, je peux pas parler au nom des autres. lan mooy les premiers chantiers de l'association premier chantier de l'association sama priorité des euh, réduire les coûts de production. parce que boo réduire les coûts de production ñii nga xamante ni ñoom ñooy les Indiens euh, vous seen comment dire le gap. entre ñoom seen coût de production ak yow sa coût de production wàññeeku na de ce fait du point de vue compétitivité di nga nekk compétitif donc réduire les coûts de production dindi euh, complètement consommation gasoil remplacer ça par de l'électricité mais réduire euh, c'est un verbe conjugué à l'infinitif kan mooy réduire les coûts de production ñun ñoo koy réduire il faut comprendre une chose je veux que l'État du Sénégal comprenne une chose di laaj état tabaxal ñu usine. Hmm. waxuñu état kay tabaxal ñu chambre froide. Hmm. on n'a pas dit ñun ñoo koy tabaxal suñu bopp. mais il faut que l'environnement soit favorable boo créer situation boo xamante ni ñun bu ñu bayee du ñu mën a jaay situation bi ñu nekk nii tey même boo amoon. Euh, euh, chambre froide bi gën a rëy ci àddina bi boo jëlee dugal ko fa c'est une surproduction doo mën a jaay. mais ci wàllu production bi nga wax noonu déjà même bu ñu leen bàyyoon parce que yaa ngi doon wax affaire étranger yi est-ce que vous avez la capacité ngeen satisfaire déjà le marché. c'est déjà fait. pour le moment amu c'est déjà fait. ça déjà fait. lu ngeen di produire est ce que ça. fait même c' déjà fait c' déjà fait c' est déjà fait ñaata la non non effectivement nga comment dirais-je consommation Sénégal demande bi ñaata la. ils ont dit que c' est les statistiques officielles que c' euh, tonnes l' année. boo demee Ngomeen rek. stock bi ñuy yore fii te c' tonnes. vous voyez ce que je veux dire. tu vas dans la vallée du fleuve ils produisent plus de tonnes. nous au niveau disent beaucoup boo jógee euh, euh, comment tare ji wàcc noonu ba njum wàcc noonu jubal ba boxul jubal ba ba ba ba njabin gànjool jubal noonu ba póotu mais ñoo ñooñu amuñu échelle yu yaatu ah, amul suuf suuf si ñu am est-ce que bëri na non attends quand même ñoom ñoo ëpp suuf fii Sénégal zone vallée du fleuve ñoo ëpp suuf ñoo ëpp ndox ñu ëpp suuf ñoom ñoo ëpp ndox léegi nag léegi léegi dans quelle est la contribution mhm. de ces étrangers sur le marché xanaa man de pour man seen contribution li li muy yàq moo ëpp li muy defar parce que seen présence fii ak surproduction bi ñuy créer moo indi problème yi nga xamante ni ñun dañuy jànkontale ak ñoom. problème ne vous comprend pas pourquoi pourquoi je dis ça parce que avant ñooñu. Mhm. on savait que Pape Djibril les gens avaient de gros problèmes dañuy importer régulièrement euh, soble Hollande bi ak leneen. souvent souvent soble wax li ma la wax dem nañ ba huit mois. yoo xamante ni li ma lay wax mooy progressivement chaque année. on est l'État et là il faut remercier l'État du Sénégal parce que ils ont accordé des subventions yoo xamante ni dimbali nañu pour que at bu nekk ñu ngi yokk production bi il faut il faut être honnête et le dire boo laajee la euh, au niveau de la direction de l'horticulture demande comment ils ont dépensé ils ont dépensé beaucoup d'argent pour nous aider en termes de subventions pour ñu yokk suñu production. Super. donc chaque année. Mm-hmm. production bi mu ngi yokk dafa yokk ba ñu toll foo xamante ni tey. soxluñu keneen di ñëw fii di wujjante alors la dernière question ñoo ngi wax nañu waxtu bi ñu joxoon Mohamed <laughs> bari na Mohamed moom dafa mel ni am na tool parce que intérêt bu rëy la ci wane mais beneen question bi mooy la question euh, liée à l'accès au foncier mhm. est-ce que tey jii wut nañ ay yoon vraiment mooy dernière question bi yoo xamante ni sénégalais lambda bi dina mën a de ci suuf bu bari bu yaatu ba pare aussi mën ko valoriser parce laaj suuf boobu mënul valoriser aussi jëriñul dara en tout cas euh, il est plus facile. Oui. pour Sénégindia ay Indien ñëw fii ñu jox leen 3000 hectares que peu man ma ñëw fii ñu jox ma 100 hectares. lu ko waral euh, xaw ma lu ko waral. c' est l' état du Sénégal qui fonctionne comme ça euh, ils sont en ñu ngi développé benn programme bu tudd PEDIDAS. quand li ñuy wax ci programme bi mooy il dañuy invité sénégalais yi nañu ñëw ñu investir dans l' agriculture. moi j'ai bi ma leen woowee dañ ma ne envoie nous un email j'ai envoyé trois emails benn bi pour mon nom personnel que je veux un champ pour pouvoir travailler beneen ñaar yi c'est pour notre organisation ba tey tontu tontu wuñu ma et pourtant ils sont allés foire fële à Paris foire de l'agriculture à Paris pour inviter les investisseurs européens pour qu'ils viennent parce que ñu ne dañ leen di jox un foncier qui est garanti mais le foncier c'est pas l'État c'est les collectivités territoriales non c'est l'État c'est l'État c'est l'État <laughs> c'est l'État c'est l'État c'est l'État c'est l'État central c'est le gouvernement c'est le président de la République c'est l'état central. C'est bon ñële ils ne font que subir ils ne font que subir. jërëjëf euh, Issa